jërë ngeen jëf mbokk yi ànd ak senevision point com ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun ci présentation bi seen mbokk na Cissé féete it ci wàllum caméra bi mbokk yi nag tey kii ngeen jàkkaar lool mooy moo du fay Baye Fall di yëngu ci euh, fajum cosaan di yëngu it ci wàllum ñaan muy nekk ci Diamaguène euh, Dakar euh, numéro téléphone am yéen a ngi koy gis noonu ci écran bi muy affiché tey nag bëgg nañ séq ak moom waxtaan bu yu am solo ci tomb bu am solo boo xam ne dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo Serigne bi kon asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Arona. maa ngi lay nuyu di la ziar di la fay bu baax di rafetluwaat euh, dalal gi ñu dalal di nuyu waa Sénégal di nuyu àdduna di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci àdduna bi ñu ngi siyaare ñëpp di balu ñëpp ak di nuyu sama sëriñ sëñ Mourtala Fall moom sëriñ Cheikh Modou Mbenda di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal gudd fan ak wér fogole seereer mais sim naa nun gid waa nun jokkaataa nun a njal layaataaye obi nun ondokoor nun ondaan nun te waxtaan fa no cirake andoona yee ka mayno jamano ne te a jaxas e, mayu mayu mayu ka andoona yee wiin we ka njambatando te ta may te taxu i mbësiyene o layo ye fat i yaaj no ke i seqna yo bo xep oxu warna te daaw ref o seereer o daaw te te o ɓiin seereer ka an cosaan a waag cosaan gon koy ru i nga'na ka andoona yee xan a ɓeka nuun no ka leŋ a andeerna xan i njeem o waxtaanu fa nuun no kemtalaay kattan in ku i mbaagna te rek i ngin o nuun te xu ga'na xa jaxlatongan cerof rek o ɗeet oxa doyoonga o ret bo maano ten inchallah sëñ Aaron loolu moom danga ma <laughs> mooy comme ni ñu ni ñu nuyoowee si olof rek moom lañ nuyoo suñ mbokk séeréer comme ay séeréer lañ te émission bi ci olof lañ koy def ñu ne ñu nuyu suñ mbokk séeréer rek waaw. sëñ Modou Faye yaa ngi yëngu ci wàllum ñaan euh, suñu borom may la ci lool euh, tey ñu bëgg waxtaan ci mbirum rab sëñ Modou fay lan mooy rab lan nga ci bëgg a baaxee ñi nga xam ne mooy jaami yàlla yi ndax kat. mbir yi sonal na gaañu sañ Modou ndax bariwaa na lu fi gàllankoor nit ñu ne rab la mhm. te rab moomu bari na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne ñii jàpp nañ ne mën nañ koo faj ñii jàpp mënuñ koo faj muy lu doy waar yàlla may la ci nga bëgg cee ñëw waxtaan ci ak ñi lay seenaan tey lan nga ñu mën a dénk ci loolu waaw laaj nga laaj bu am solo ndax rab dafa nekk loo xam ne lu am la te mbindeef la yàlla moo ko bind comme ni ñu binde man lu bëri itam maanaam rab lu mu jéem mën naa sotti ndax dafa bëri ay pexe lu mu jéem bu échecgee mu dem ci beneen pexe léegi nag rab dafa nekk loo xam ne lu wér la te lu am la te luy jàpp nit la léegi nag bu amee li waral ñu ciy wax di ci leeral nit ñi bëgg nañ nit ñi gindeeku ci bëgg nañ dimbale ci nit ñi ndax yor nañ ci xam-xam boo xam ne bu leer la te lu wér la loolu moo tax ñu koy leeral te bëri na yuñ ciy wax yoo xam ne nekku ci ndax bëri na lu ñuy jiñ rab te du nekk rab waaye am na loo xamante ne ñu ngi koy jiñ la te fekk rab la léegi nag dafa baax ñu faram-faaje ko leeral ko ba nit ki dégg mën a xam ne lii lii la ndax rab buñ ko waxee dafa am ñaari façon rabu cosaan dafa am rab boo xam ne du rabu cosaan am léegi nag rab yi nga xam ne mooy rabu cosaan ak rab bi fàdd nit nit ki di di di am jafe-jafe bokkul ak rabu cosaan tey bu ñu waxee comme suñu xam-xam yi nga xam ne moom lañ yor xam-xam yi ci ëpp solo rabu cosaan da koy jox nit rabu cosaan day jox nit xam-xam rab baax na ci benn côté baaxul ci benn côté ndax tey bu ñu waxee xam-xamu cosaan ku ko yor lu ci ëpp mën nga koo jëlee ci rab te boo ko jëlee ci rab firnde bu leer naa ñi nga ci am te lu wér lay nekk bu la ko rab xasee jox lu wér lay nekk te loo ci defal nit mu gis ko waaye dafa am anam yoo koy amee ci rab am anam yi nga xam ne dañ ne nit ki dafa am rab mais nit ki am rab lan mooy am rab nit ki rab jàpp lan mooy rab moo ko jàpp tey nit ki am àndandoo tey àndandoo cosaan day yàqal nit mais ni mu koy yàqale bokkul ak ki nga xam ne dañ ne rab moo ko dugg bokkuñu léegi ki nga xam ne dafa am rab rabu cosaan li waral mu am rabu cosaan boobu mu ngi mel ne tey sa maam doon faj am ay jinne wala sa yaay doon faj am ay jinne léegi wala ngeen amoon ay tuur wala ngeen amoon ay xàmb di fa tuuru di fa def ay yëf léegi ba kilifa gi yoroon loolu génn àdduna léegi bu génnee àdduna tey ñu ne daf da doon faje rab hmm. nit kiy faj ay rab te ay rab la yore doon ci faj ay rab hmm. léegi nag kooku bu génnee àdduna hmm. njaboot gi bu fekkee bàyyi leen wu leen ak sekkere ba mu yoroon wala xamalu leen yoon wa ñuy jaar rab boobu du génn àdduna parce que rab dafa gudd fan day dafa gudd fan tey bu ñu nee jànku jinne mën nañoo jànku jinne mën naa dund ay junni at léegi nag bu dundanoo ak nit ki loolu ba nit ki génn àdduna mhm. nekkoon ak moom ci këram di ko jëfandikoo te bàyyiloo sa njaboot lu leer loo xam ne ni mën nañ caa sukkandiku ba mën a am jàmm mhm. rab boobu day wër ci biir famille bi léegi nag mooy waral tey nit dara di xew ndax dara di xew ci famille bi wala dara di war a xew nga xam ko wax ko wala nga génne ay sarax loolu rap da koy won nit léegi nag bu loolu amee ba rab bi di la protéger yàgg sa njaboot léegi nag bi nga génnee àdduna bàyyi noonu njaboot gi des fa si xamuñu rab boobu mën nay aar njaboot gi kenn du leen mën a liggéey dëmm du leen mën a jàpp kenn du leen mën a yàq ba yàqal leen suñ waroon a génn war a accidenté te accidenté boo war a am loo xam ne accident la boo xam dafa am lu ko sabab rab bi mën naa dugg ci diggante loolu ak loolu ba du dal nit ki nit ki it mën na ko bañ xam nit ki mën nay ànd ak loo xam ne xamoo bu pare nag wala nit Gudi, nit bëgg la yàq wala tey nit di xool say mbir pour yàqal la wara pour liggéey la pour yàq say mbir rab bi day dugg sa diggante kooku ragal loo ko wala mu lëndëmal la ba nit ki bu la lis sa xaaroon du la gis mais rab bi bu la defalee loolu dalay bàyyee tooke tooke jim lay bàyyee da ngaa war a xëy xam sarax bi nga war a saraxe ndax man na la ko won ci ay gént nga xam sarax bi nga war a saraxe nga saraxe ko wala nga dem ci sëriñ bu am xam-xam mu sangat la sangat boo xamante ne day dindi tooke jooju légui nag bu lolou amé ba toké joju deñ moy waral nag nga ko mais dir bi la rabbi dila di garanté di la di la da lay tejj pour nga am xaalis wala nga lijjanti dara mu soti wala nga nangam day ki légui nak bu lolou jallé ba nit ki la doon fexel wala dëmm bi la doon fexel wala ki la doon bëgg a bu lolou jallé da lay da ngay wat mais ubbé ko tejj gogou day am toké bu mu bàyyi sa yaram moy dem ba mu yagg tay jigen ju bëgg du ko mëna am wala nga bëgg am dom, do mëna am dom, wala sa régal di tëju wala sa yaram bi di diis ngay tàyyel toog yaram bi xol bi waaw mel ne ay sànqale ñooy dox sa yaram wala sa bopp bi bu méttee tey bu subaa tànk yi maanaam faw ngay jàmbat loo xam ne day dëkkaale ak yow léegi yooyu mu lay tëjee noonu di la indil jafe-jafe yooyu nekkul ne dalaa bañ wala dalay yàqal waaye daf la defal lii te yow defaloo ko li mu bëgg te sa waajur woowu ko yoroon wala rab bi la topp am na lu mu bëgg pour nga ko koy defal moom itam mu lay defalee léegi nag saa yu defee xeexal la ci côté boobu ba pare. te yow saraxe woo wala amoo càngat yu mën a dindi tooke jooju mooy waral nag gàllankoor yi mu ngi mel ne tey nga yor xaalis bu bëree bëri bëgg cee def dara xaalis bi jékki-jékki tasaaroo wala nga dajale xaalis bu bëgg cee def dara xaalis bi jékki-jékki seey wala chaque jour boo yoree xaalis jékki-jékki am benn problème boo xam ne ci nga koy dugal ci lu manoon a ñàkk daal def ko ci léegi nag mooy waral ay jafe-jafe yu bëree bëree bëri di dal nit ki wala tey nit ki dem wuti liggéey doo am liggéey wala nga dem fenn di fa liggéey ba mu yàgg benn scandale am fa ñu dàq la nga jóge fa wala nga dem tuxu fenn ba ci yàgg nga jug foofu soof la nga tuxuwaat feneen wala bu nit ñi toogee di waxtaan manam da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay énervé wu manam do bëgg jetaay jetaay yu xumbu do dajalu ak nit ñi wala muy dugg sa ak nit ñi melni nit ñi da nga leen def dara waye bu foobaa day fekk day am lu dox sa ak nit ñi manam mo lay doxale lu bëré bëri pour nit ñi day melni benen image lañ lay jox légui da ngay ak nit ki bo wara jëflanté ak mom mu jekk-jekk bala nga ne diiw dama wor fekk warul la li nekk ci yow motax maanaam loolu di demee noonu boo ci yeewoo nag da nga koy gëstu nga xam lan la nga fexe ko dindi ndax mën na laa tëj ba doo am jëkkër mën na laa tëj ba doo am jabar mën na laa tëj ba doo am dara mën na laa tëj ba kër goo dëkk sax bu yàggee nga jaay ko tuxu feneen wala boo tabaxoon tabax ba mu egg mu jékki-jékki daanu wala boo dëkkee ci kër gàllankoor yi di fa bëri waaw day dofloo nit waaye rab yooyu du rabu cosaan rab yi dofloo nit bokkul ak rabu cosaan léegi nak yoyu moy waral di bëri di bëri di bëri rabbi bi lay dajale ci yow di ko dajale ci yow di dajale ci yow moy waral nangga nga dem ba sa aduna yépp day diis ci yow manam aduna bi day diis ci yow ba nga ne manam man nga wër téméré sëriñ ñu lay sangat di la ñaanal fekk xamuñu yow li la tek problème bi dañ lay gëna a parce que rabbi bu yagge nga koy jaxase ay ciangat yu ñu lay jox wala ay nangam nangam wala ay sarax yu wut ak lolu da lay gëna a rabbi day dem ba day say say mooy. bu boobaa lu mel noonu am benn sëriñ bu xam yëf yi nga yem ca moom. boo ca yamee da koy dindi ci sensé te bu ko dindee du weesu ñetti fan nga commencé gis li nga xamante ni moom ngeen waxante wala nga gis résultat manaam dañ lay wax ne la ñun lépp lu ñu la wax mën nañ ko mais dañuy leeral nit ñi ba ñu xam fi ñuy teg seen tànk bu baax a baax maanaam mbirum rab képp ku la koy faj benn fan. mu jox la ci looy jëfandikoo ci rab li nga xamante ni comme nii ma la ko waxee benn fan nga xëy suba gisoo ci résultat bu yeboo nga jéem a xooli keneen sëñ Modou Faye benn fan ku la ci engagé ci wàllum rab defal la gisoo résultat nga tëdd ba bët set gisoo résultat. demal seeti keneen man maa ko wax muy man muy sama morom nag. sëñ li nga engagé rëy na de. maanaam. ñun waxee waxewuñu suñu bakkan dañuy wax li ñu xam ak dimbale nit ñi ndax xam nañ ne sonn nañ ci waaye dama laa xamal ne rab cosaan moo koy faj cosaan bi koy faj sunguf ak reen ak garab ak xam-xamu bopp mooy faj rab léegi nag képp ku la koy faj ñetti fan benn fan gisoo sa bopp demul wuti beneen sëriñ xamal ne du la faj te du la faj man maa la ko wax manam ñetti fan bo gisul résultat du la faj ñewon ci yow bokko ñetti fan bu amé ñetti fan néewu ma li ma doon jambat deñ na bu yeboo nga laajaat ma sa xaalis wala nga dem seeti keneen loolu mom dafa dafa dafa dafa leer manam borom xam-xam yi nga xamne xam nañ ko nek ay xam-xam yo xamne boy booy faj rab nan nga koy fajee nan koy jubole borom waa ila saa da nga koy tàqale borom wala noo koy defee noonu. waaw dafa am rab yoo xam ne dañ koy tàqale ak borom mooy rab yi nga xamante ni rab yu dugg nit te rab du dugg nit maanaam rab yi nga xam ne maanaam tey nit ki dafa jaar fu mu warul jaar yenn heures yi nga koy dox wala rab nga dëkk ci kër goo xam ne palaasu rab la. Hmm. wala nga jaar foo wërta jaar wala nga jël dara tuur ko foo xam ne palaasu rab la te neexu ko bu boba bu fekke muy def dara wala nga wal ko fil wala mu nek place bo xamne day jall ak ak njabotam day fekk mu yor dara mu ngi melni tay yow nit tooñ rek nga jek jek rek biti ko loxo wala nga melni loko luko su yoron dara rek sanni ko ko ngelaw lol la lay bayel lol moy waral ñu ne diw dafa yor ngelaw ngelawu saytane legi nag ngelaw lol mu na bayel dañ koy gindi ba mu set lol lañuy fajj nit ñu ne ki dafa yor wala wala wala nit ki xamne rab wala nit ki xam ne rab da koo dugg muy say di mbëkk ay miir di daw di jégg ay teli wala di yuuxu di waxtu naan mu ngi nii wala mu ngi nee wala diwa jàpp diw nangam wala diwa nangam wala rab baa ngi nii wala diw nangam commencé di wax wax yu jaxaso yooyu nga xam ne moom génn na ci mondo bi ñu nekk ñun kooku rab boobu dañ koy faj ci nit ki taqale kook moom maanaam génne ko ci nit ki mu set wi ci nit ki doog a nekkaat nit ko rek bokkul ci moom maanaam bokkul ci moom dafa dugg mais du jëmmi rab bi moo ko dugg. loolu wax nga lu am solo. Mhm. li bokkul ci moom koy dindi teg ko nële. da nga koy dindi teg ko nële. moom moo ma ànd nag. nga déggoo nga déggale leen. nga déggale leen te loolu dafa am ay càngat càngat yi koy def xeet la tey mu ngi mel ne ñu ne pël joolaa tukulóor bambara soose maanaam rab yi noonu la amee ay xeet. gis nga boo dof dofloo ba jël sunguf boo xam ne wala garab boo xam ne rabu pël moo ko moom nga sangee ko ku yor rabu joolaa. Mm. lor nga boroomam <laughs> maanaam lor nga boroomam. da nga koy gën a da koy da ngay gën a may rab bi force ndax day gën a am li mu bëgg loolu moo tax gis nga nit tey heures yi dafa am vingt quatre heures vingt quatre heures yooyu ñun dañ cee am jinne yi am ci léegi nag vingt quatre yooyu douze douze boo ko xaajaatee ñaari yoon dalay jox douze douze yooyu ba tey jinne yi dañ cee am ñun ñu am ci mooy waral ñu naan la nit ki guddi li commencé timis ba jëm heures yi tëdd bu lekk lu forox ndax booy faral di lekk-lekk ñam wu forox rab mën na faa jaare def la feebar daa bëgg forox waaw maanaam dafay jaare def la feebar ndax xam nga ñaare da ngay gis ku yor estomac ñu naan la moytu lu wex ak moytul xorom moytul nangam nangam nangam comme xeet yi ñi moytuloo nit ñi tey rab dafay sukkandiku def la jabet wala mu def la estomac wala mu def la biir bu mbàq guy metti wala mu def la bopp buy metti mm-hmm. léegi nag da nga koy faj tension wala jabet wala nangam xam nga loolu ngay faju mm-hmm. parce que loolu lañ gis mm-hmm. mais rab bi dafay sukkandiku pour yow ngay faju loolu doo xam li la teg lii mm-hmm. bam gagné la comprendre nga mooy waral nit dem hôpital ñu xool la analyse yëpp def ko duñ gis feebar te yow da ngay xam ne yow lii di metti suñ bi buñ la ko waxoon da nga naan lii estomac la wala lii feebaru sàngam la waaye buñ defee analyse duñ gis feebar rab noonu lay liggéeyee rab du ñëw rek dal nit rek directement ñu xam ne lii rab la gon rab boobu xereñut waaw xereñu dalay dalay dalay dalay def loo xam ne da ngay dem di faju ji lale wala boo demee sëriñ bu xamul dara wala xamul li li la dal mu sukkandiku ci yow nag di la faj loolu mm. mooy waral nga dégg nit naan dem naa fu nekk sama feebar bi nangam fu ne dem naa fa te ma yu mel noonu moo koy waral léegi nag nit ki bu ñëwee nga xam yooyu tak mën nga koo faj li ko dal waaye xoolal li ko teg feebar bi nga dindi loolu doo ko mën a faj nit ki am ci moom résultat loolu mooy mooy waral loolu moo waral jigéen ñi ak nit ñi sol faral di sol yére yu xonq baaxut nañ ko bàyyi. jigéen ñi jigéen ñi musóoroo jigéen goo gis mu ëpp lu muy musóoroo waaw muy musóoroo musóor gu xonq du tàqali kook rab ndax saa yow musóoroo musóor gu xonq rek rab yi dañuy kontaan dañ naan kii de déclaré na guerre Serigne Modou Faye Baye Fall wax na de nee na musóoroo musóor yu xonq yi ba ko waaw dañ naan déclaré na guerre mhm. léegi nag su ko defee nag yow feeg yaa ngi yor ay yére yu xenq rek yaa ngi dooleel rab yi nga xamante ni ñooy rab yu bon yi mais boo solee yére yu weex wala yeneen couleur yi bu dee yére yu weex dañ naan i diw de yor na yor na daa mel ne kii euh, day wut wàllu de mm. duñ la ñeme mm. moo tax col dafa am solo ci nit yenn signes yi dafa am solo ci nit mm-hmm. moo tax nit ki lépp looy def mm-hmm. da nga koy xam mm-hmm. waaye rab lu am la luy luy sonal nit la luy mën a faj la lu maanaam faj rab su ma ko sañoon a wax tey ndax dafa xaw a diis waaye moo gën a yomb ci xeetu faj yëpp. faj rab maanaam moo gën a yomb ci xeetu faj yëpp mais day fekk nga xam ko xam nga nit ki li nga xam day mel ne tey nga nga nga yor paan pot ndox rek di naan noonu noonu la demee. ki ko bëgg nag léegi su ñëwee ci sëñ Modou Faye nan lay def da ngay ñëw rek nga xam rab bi ko jàpp wala am yoon mu war war a mën a jaar. maanaam ñun nit ku ñëw buñ toogee ak yow. Hmm. kese maanaam dinañ xam. manam yow rabbi la japp ban rab la wala rabu ciosan la wala rab la yakal la. wala nga setal ko sax. manam xam nga moy li la wax legi tay rab dafa bax amna rab yo xam dañuy jox nit xam-xam waye nim lay joxe xam-xam da nga yor turu jinne diko liggey diko liggey ba tay amna tur yo xamne boko wir don bala mot une heure de temps jinne day ñew taxaw ak yow dalay tegal ay condition nga ak mom ay condition kooku lépp lum la jox lu wër lay nek lan ca sakku lo ci def lu wër lay nek waaye yoyu amuñu njariñ ndax li tax amuñu njariñ moy dafa am conséquence conséquence bi moy da ngeen du la jox yeufam ci ci ci ak neen da ngeen di tégante ay sart bu dee nak rab bi nga xam da la gis bëggal la bopam top la and ak yow nekkale ak yow koku man na lay jox xam-xam di la xamal lu bëré bëri té du am ben conséquence bu ci nek parce que moo sàkkoo ànd ak yow yow sàkkuwoo ànd ak moom léegi nag mooy waral nit ki di ñëw ci yow tey ji ñu xëy ñu ne diw dafa war a dem ci sëriñ sàngam faju yi bu dee sëriñ bu xam dara la bu tëddee guddi dañ koy jox misaal moo xam ñu jox ko turu nit ki moo xam ñu jox ko tegtal ne ko feebar sàngam dina ñëw ci yow feebar sàngam na ñëw ci yow nii lay mel nii lay mel léegi nag boo xëyee nga def sarax yi nga war a def saraxe ko léegi da ngay jekki-jekki rek nit ku egsi bu egsee bu toogee da ngay xam ne kii moo moo moom nga gisoon démb ci guddi waaye dalay wax ba wax la li koy faj mm-hmm. maanaam dalay wax moo tax xam-xamu bopp dafa baax mm-hmm. maanaam xam-xamu bopp mm-hmm. dafa am solo léegi dalay wax wax la déggee rab moom lu mu mënta defal nit amut waaye lu mu mënta def nit ñoom lu ñu jéem man ko lu ñu jéem man ko ndax suñu borom moo leen doole ndax li mu leen doole mooy da nekk nitu kese di dox ci mbedd yi gisoo gisoo jinne te jinne di la gis xam nga kon lu mu jéem mën na ko mu ngi lay gis te gisoo ko léegi nag bu dee nit ku am kaaraange nga am gàllaaj booy dox fala jëmoon sax pour ak waxtu wi li ñi cërélé won ci waxtu li ci dess barétul yow wax nga ci kim dal ak nim mu koy daleeg yooyu mais ki nga xamné ne dara rap dalagu ko ndax amna na ay matuka yo ko wara mëna jox ba yëf du ko dal waaw moy li mala wax ñent yi nit da ko wara a manam mëno wat ne dëmm duma jàpp munoo waat ne rap du dugg mëno wat ne duñ ma liggéey mëno wat ne chat du dugg comme yoy nag yow mëno ko garantie ci sa bop da ngay fexé ñak sa bop ba yoy buy ñew am lu ko maanaam nit day day fàggu ñeent yooyu. Mm. léegi nit ki yooyu yëpp jàppagut da am gàllaaj gu wér mu leer na la yow mooy waral nit ki nga xam ne tey nit boo gisee mu commencé di bëri ay problème mm. di bëri stress di bëri yu muy xalaat ci boppam. Mm. di bëri yu sew sewaan yu muy jànkonteel waatal ne amut gàllaaj nit ku am gàllaaj maanaam yenn jafe-jafe yu ndaw yi. du maanaam feebaru maanaam feebar yu sew sewaan yi sax du la dal. manam bo protesté sa bop hmm. feebar yu ñak fayda sax du dal. lu fu fa yàlla daal. ca yàlla maanaam du dal. légui nak comme suñu borom dañu jox ay xel manam farlu moy des ndax nit ku nek rek mbiru aduna yi ñuy def ak ni ñuy liggé ni fi mbiru aduna la légui nak nit ki mo koy fagul bopam pour xam ko te it nek lu wër ndax xam-xam mom lu am la waaye comme mbiru cosaan la te maanaam lu wér la te nit ñi yor ko te mu nekk lu wér maanaam nit ku ci dem na nga xam fi ngay teg sa tànk xam loo xam ne lu wóor la loo xam ne ci jaaree rek yow di nga am li nga bëgg. yan yi moom mën naa ci am. <laughs> waaw bu la neexee. <laughs> yan yi moom ci lu muy dox moom sëñ kii. waa lii cosaan la rek ndax xam nga mooy li ma wax léegi rek maanaam lépp loo gis xam-xam dafa dafa dafa am te xam-xam du loo xam ne comme xam-xam yi du xam-xam yu ñuy science wala xalaat wala nangam. maanaam xam-xam la yoo xam ne fi ko nit ki di amee nit ki moo ciy farlul boppam sàkku ko ba am ko walla mu nekk loo xam ne ak may lay nekk tey am na ñoo xam ne mën nañoo def lu nekk ci àdduna te kenn du taxaw ci àdduna ne maa leen jàngal xam-xam maanaam amul kenn ku mën a taxaw ne kii maa ko jàngal li muy def te lépp lu mu def day réussir. macha allah waaw loolu day am. ñu cëraloon ci waxtu bareetul euh, ñaari minute moo ci des ngir jeexal nag sëñ Modou Faye a jot lu muy def ci wan yoon lay jaar ak fan ngay nekk. ak ndax tamit ci rab rek wala amna yenen yeneen yo yoo xam ni yittal askan wi la te yalla may na la. li ma gën ëppal solo moy nit ñi nga xamne dañoo dem ba jaaxle manam dañoo dem ba jaaxle te xamatuñu jëm manam nit ki lepp lu la dal te munaloo ko sa bopp xamaloo ko sa bopp del wër ba gis ku la mën a faj mu faj la nit ki itam booy faju na nga xool ñi nga xam ne kii na la ni li wax wala li muy def mën na ko nga dem ci moom waaye di wër di wër di wër di wër loolu taxul sa aajo faju taxut it nga am la nga bëgg xam-xam soriwut maanaam it fi ko nit ñi dëkkaleek ni ñu koy xumbale léegi maanaam xale yi léegi ak ñun ñëpp sax maanaam ni ñuy xumbalee xam-xam ak yañ cay yokk xaaj bi yëpp bokku ci da ngay dégg ñu naan la ay jinne yi jinne yi ñoo ñooy def lii jinne yi ñooy tuur deret jinne yi ñooy def nangam ñooy këpp oto yi ba dañuy dem ba nit ñi seen bopp yi liñ ciy def dangay jàpp ne sax yow boo génnoon fi di dawal oto rab fiir la xanaa bu demee noonu gon rab yi ñoo ñu gën wala jinne yi ñoo ñu gën ah? <laughs> ah gon ñun mënuñu dara nit mënul dara mm-hmm. yaa ngi dégg gon am na li nga xam ne maanaam xam-xam la waaye nag ki mu dal rek moom moo war a faju yi yàlla dimbali ko mu tàqali ko ak loolu waaye nañuy fexe li ngay wax mu nekk dëgg ci yow li ngay def it nga man ko mu wóorale bu sa doom feebaroon wala sa mag wala sa rakk bu feebaroon <laughs> li ngay jox nit ki moom nga koy jox waaye mënaloo sa bopp pare bëgg mënal nit ñi dara di encaisser di noos rek loolu moom baaxul loolu baaxul te xam-xam dafa nekk loo xam ne gis nga rab ku ko mën a faj dëgg wallahi bëriwul loo mën a xëy faj ci tranquille maanaam faj ci fukki nit faj ci fukki nit mu nekk faj mu wóor ci rab ku ko def bëriwul amul maanaam dafa am loo xam ne dafa yenu maanaa am lu yenuwul maanaa maanaam sëriñ bi nga xam ne xamul dara nag moom du am problème du am problème mooy mën naa dajale fanweeri mën naa dajale téeméeri nit. xëy ñoom ñëpp mu jox leen garab ñu dem kooku day tëdd maanaam rab yi dañuy kontaan te rab yi dañuy xiirtal nit ñi ñuy dem ci moom. parce que dañuy xam ne kee moom du ñu yàqal suñu liggéey. Mm. bu dee sëriñ bi xam dara nag moom. man nga sax nit ki sax yow lay gën a bañ maanaam nit ki rab dugg sëriñ bi xam dara lay gën a da lay dëddaleeg moom yow moom ngay gën a bañ mi ngi mel ni sa noon xam fa sa njëriñ léegi nag da ngay waaw léegi nag da gis ku naan sëriñ bi daa naqaree gis sëriñ bi munoo koo gis dafa xat di am këram ay ñetti fan ay ñeenti fan di ràng léegi rab bi moo lay xiirtal yow pour nga topp sëñ bi léegi da gis ku topp sëñ bi ba ba lam xamoon jeex nga dem wéroo nga décourager demaat ci keneen kon léegi boo demee ci benn euh, sëñ Modou fay wala benn nit bu ne la soo ma joxee 3500 ma faj la wala boo ma joxee 8500 ma faj la nga naan kii xamul li muy wax man li ma daj ak li ma lekk ci xaaj ak li maanaam ñi ma dem ponkal yi dem maanaam ak fi li ma fi ma jaar kii ne ma nangam li mën na laa faj ñàkkale ko nii fayda léegi rab bi mooy def ci yow loolu pour kee du la jox la mu yor comprendre nga moo tax bu amul xam-xam du am problème mais rab saay-saay na saay-saay goo xam ne ak am na am doole goo xam ne bépp sëriñ bu ko mën a ah di xëy di ci faj lu mot fukki nit mu wër yow yaak nit ñi yaak ñi ko yor yena yam problème ndax mom da ngay xex rek fo toll. sha allah wa da ngay xex rek fo toll wa ñi ñi la bëgg jot wala ñu bëgg la gis fan la ñuy ñëw. ñu nak ne dañuy wo nit ñepp ñu ñëw ci ñun dañuy wax pour léral nit ki xam waye képp ko xamne ne war nañ la faj. yalla la suñu borom wonale bu fekke keneen mo yor sa garab yalla yalla xirtal wonel la koku ba nga dem ci mom waaye ku ñu soxla dal comme ni nga ko waaw jàmm gën lañ dëkk waaw. waaw jàmm gën waaw ñu ngi waaw. ñu ngi lay xaar nag suñu Modou Ndaw. allah <laughs> waaw waaw parce que bari na fi ñoo xam ne ay célibataire lañ te rabal leen ko teg ci <laughs> waaw kéemaane na kay. kon ñu lay gërëm. waaw ñu ngi lay santaat bu baax di la sant fas ak yow. ci yeneen i waxtaan ci lu mel ni cat. ay liggéey. Ah, waxtaan bi neexoon na de daa jeex. waaw incha allah nañ eh, ak yow. di la gërëm. jërëjëf jërëjëf. waaw sëñ Arona yow itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan ci réew mi jàmm di nuyuwaat sama sëriñ sëñ Mourtala Fall moom sëriñ Cheikh Modou Mbenda di ko ñaanal gudd fan ak wér di sant ñëpp. jërëjëf mbokk yi doon seetaan vision mi ngoog sëriñ Modou fay Baye Fall moom la ñu àndaloon di yëngu ci pajum cosaan waaye it di yëngu ci wàllu ñaan ak ya ci aju comme ni mu ko waxee tey ñu tànnoon tombub rab doon ci baaxee ñi nga xam ñooy askan wi képp ko xam ne lu mel noonu gaar na la te nga yittewoo jokkoo ak moom numéro yaa ngi noonu di affiché ci écran bi waaye muy nekk Dakar jàmm gën Touba it incha allah mi ngi préparé pour installé wu fi kon ngeen bàyyi ko xel bu baax danañ wéy di ànd ak moom ci yeneen i jataay incha allah kon wéy leen di ànd ak programme senevision point com jër ngeen jëf. mbokk yi nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu sit bi di senevision point com te bu leen fàttee di bës close bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo